maafe su munul mbaxal mën na ataaye su munul fóot mën naa paase su mënta togg mën naa bale ak a baax mu ne bul xool li bon ci moom mais jëlal li mu baax rekk nga tekk ci lu bon li nga mu ñëw moo tax mu ne istawsu bin nisaa'i xayra lebal leen jigéen ñi lu baax moo tax jigéen ji jëkkëram dafa jekk-jekk rek faset ma jëf yaay booy yàgg ngaa daanu ci man bu doon saa bu ma joxee sama loxo yi kuuñ géwël amul nag ku ñu defal lu baax rek fa nee nañ Seyda ku la defal lu baax nga ni duma ko wax dama koy denc naroo ko wax yàlla dafa ne la in shakartum la azidannakum in kafartum moo tax jigéen ji bi ko jëkkëram takkee mu nekk xale muy sëy ak moom papa ma mu dem ba màgget jur kër gi ba mu fees mu xeexee ni ko fase naa la def naa la comme sama yaay ji ma juróon jigéen ji dafa daw kër yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu ñëwee kër yonent bi mi ngi fekk yonent baa ngi toog ci ëtt bi Seydina Aïcha na maa ngi sama néeg di seetaan mu ne inni la asmau kalaama xawlat bintu saalama man day toog naa sama néeg jàkkaarloo ak jigéen ji muy ñëw ci kër yonent bi nekk ci digg kër gi di baagante wa hiya tashtaki zawjaha ila rasulillahi sallallahu alayhi wa muy boole jëkkëram yonent bi problème yàgg naa am jurloo jigéen ba mu ba biir bi tuuru nga ne ko fase naa nga xam ne kenn na ko tudd nga dem takk sa xale bu ndaw kon koy waxee boo bësee bakkan bi muy génne nga teg ko ci kër gi te naan ko bul fiir wala la góor ga doon naan bu bu bu bu dëkku merul gan du toog waaw man sama papa ko doon wax sama papa ko doon wax bu takkee ñaare sama yaay commencé di bañ it mu ne ko non bu dëkku gan du toog suñu papa yi ay kilifa lañu woon waaye tey alhamdulilah ndaw Aïcha maa ngi gis ndaw si di boole jëkkëram bi di baagante ci jëkkër gi tàkk ndiggam lan la ko doon wax akalat shabaab ونشرح له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظهر مني ndeysaan lu métti yàgg naan ci àdduna de mu ne allahuma inni ashku ilayka Aïcha nee na fa maa bari xat xattaa nazala jibril mu ne yonent bi gis nga sama jëkkër daf maa takk ma nekk xale bu ndaw jur naa ba léegi sama jurukaay jeex na màgget naa kenn nobatu ma waaw man maa ngi nii léegi sama kër fees na del nee na fasoo ma rek yam ci de xam nga am na góor ñoo xam bu ñu lay fase dañoo ma baal dañoo yore bu ñu lay fase dañoo wax fase daal benn yoon fukki yoon la ñuy boole waaw def naa la comme sama yaay bu ma la dametee xam yàlla naa nangam di waat góor góor gis muy def loolu bu ndaw si di génn muy rëcc parce que àndul ak xelam mu ne ko nag def nee na def na ma comme yaayam man laa war a def yonent bi xamul lan lay def xamul lan lay wax mu bàyyi ko Aïcha ne la may seetaan jékki-jékki rek gis xam nga bu yonent bi bu Jibril ñëwee wax yi du wàcc Aïcha xam day gis dafay ñàkk sonn moo tax yàlla mu ne ko inna inna sanulqi alayka qawlan thaqilan wax ju diis la ñuy wàcc ci muy alquran bu daan wàcc ci yonent bi dafay sonn moo indi woon iqra iqra dambilu ni dasli foofu la jaaroon yu metti mu jóge fa tiit ndax malaaka moo ko njëtt te xamul malaaka bi sëñ paata taal bi sëñ Tuubaa mu nekk lu metti waaw kii mooy bàjjan faama faal moom mooy yaayu abu ca daara ja buur xale yi yooyu ngeen di gis ñuy la jël macha allah mooy mooy mooy mooy mooy mooy yaayam jigéen ju baax a ñëw jigéen ju mën a sëy jigéen joo xam lu nekk gis na ko ci sëy kii moo tax doomam yëpp a mokkal alxuraan góor ñi jigéen ñi doomam jooju ma leen di wax li mu mokkal ak ci alquran ci ay xale xaw ma nu mu toll muy abu ñaar kon bàjjan faal ma faal mii ci jigéen ñu baax ñu ñu war a ba wane la bokk maam jaaratullahi bu su waaw a def waaw dëgg